asalaamaaleykum suma mbokki Gambie yi man de dama jaaxle moo taxoon ma ñëw ma ne ma ma laaj leen ndax yéen it jaaxlewu leen yéen jaaxlewu leen foogu lañ ne euh, Gambia ñun sécurité problème ñu amee nii ndax ñun ñun ñëpp ñii lañ ñu toogee di ko seetaan ndax foogu lañ ne dañu war a jóg ñëpp wax te nekku ne affaire politique la lii affaire community la lii dëkk bi dafa am fu mu toll foo xam ne léegi-léeg am na dëkk fu muy toll ñëpp war jóg takku wax de duñ ko bàyyee euh, politiciens yi rek de wala activistes yi rek de man dama foog ne jamono bi dëkka bi fu mu toll nii dama foog ne community leaders yëpp war dañu war a wax muy religious leaders yi muy school yi muy marché bi euh, um, human rights organisation yi man dama foog ne Gambia yëpp ñoo war a taxaw taxaw seet naka la ñuy def problème bi nga xam ne mooy sécurité problème bi dafa doy waar de nii la ñuy toogee nag di ko seetaan nii rek ba mu laal ku nekk ah te commencé na di laal ku nekk sax daanaka parce que ñi muy laal yëpp ay doomi jàmbur lañ ndax dañuy toog tam di seetaan bii rek di ko seetaan rek ba mu jéggi dayoo am nga ñun tamit ndeysaan ñun tamit gambien loolu mooy suñ problème ñun dañ dee toog rek di seetaan comme kuy seetaan ay movie ay nataal ak ay ay ay yi ngay rii bu ñu daan riid book yi Lady Bird la tudd xaw ma nga xam ne soo mënut a riid sax da ngay xool seetaan nataal yi rek man ma foog ne loolu moo nekk suñ produit bi tey book yi ñu naan jox te mënuñu riid ñu <laughs> billaay bëggu may ree ah! li tamit nii rek lañ koy seetaanee di dafa doy waar de dafa saa torop su on a serious note man daf ma jaaxal tey ba nga xam ne mënu may continuer sama boppam ma ne foog ma def vidéo because man mënu may understand naka la dëkkat demee nii ñëpp toog di ko xool ñuy seetaan rek di seetaan rek war nañuy seetaan suñ boppa de wasalaam